xamanté ni mom mo nek question foncière bi. dégg nañ coow li ca Ndengeleer Babacar Ngom hein ak paysan yi nga xamanté ni ñom ño nek wa wa wa wa Ndengeleer waaye ciow lolu lata muy éclaté dégg nga euh, foncier bi fi ci Dakar suñu littoral nga gis polémique yi nga xamanté ni judduna alors président en en deux minutes. ban commentaire ngay def ci lolu ak également gestion bi nga xamanté ni mom lañu wara def ci walum foncier bi. euh walum foncier bi mom coono li bari bari lenn rek waral ñàkk respecter les lois de la république gis nga daaw boo jógee taxaw sa tànk yi moo lay tax a taxaw. tout à fait. république tànk yi koy tax taxaw mooy la la loi. Mhm. su ñëpp respecter la loi rek jàmm na doy. bu dee bu dee le littoral. Mhm. mais la loi dafa leer nañ daf ne bu géej gi feesee dell wala dex gi. Mhm. parce que ñoo yor même règle bi boo dawee 100 diggante 100 yooyu ak géej gi kenn wul faa moom dara. kon bu fekkee nit dafa am dara ka ko jox moom moom laal wax su fekkee moom moom am maanaam kenn jox ko ko waaye daa yore fàkk dëkk kak ka yor ni moo ko war a dindi hmm. loolu mooy benn bu dee maintenant le domaine national muy affaire Ndingler bi ak wala jilax hmm. pour man jàpp naa ne ku tudd Babacar Ngom tooñ nga ko hmm. Babacar Ngom defu dara xam nga kan moo def dara mooy Macky Sall mi ko jox titre foncier un titre foncier illégal je vais vous expliquer allez-y loi domaine nekk ca kaw bu maanaam communauté bi rek moo ko moo ko sañ a joxe muy délibér affectation mhm. délibération mhm. ki ñu koy jox ku dëkk ca communauté rurale ba rek la war a doon mhm. Babacar Ngom dëkkul deng la dëkkul ji la kon communauté rurale waru ko jox suuf si kon délibération bi dafa illégal sous préfet ba ma nekkoon te validé délibération bi il ñu jël délibération bu jox ci Babacar Ngom bàyyi le bail bi ñu ko jox c'est de bail fondé sur une illégalité kon ña ko jox bail bu muy bu dee domaine. Hmm. ñooñu ñooñu war nañ leen a sanctionné. kon jàpp nga ne am na maguy si biir. xaaral maa gën déedéet xaaral maa gën rek. Hmm, allez-y maintenant jël jox ko président de la République ak délibération ba mu jox ko titre foncier sur un décret. Hmm. président de la République du moom président la n'est pas le conseil rural de. de de Ndengler de de Ndengler wala de ja de Ndiaganiao wala président la n'est pas le conseil rural de Ndiaganiao ou de ou de ou de kon moom amul sañ-sañ joxe fa suuf. deuxièmement. ki ko jox waru koo jox parce que dëkk fa. kon ki nga xam ne mooy Aliou moo def tox dóolin mooy le président mi joxe un décret illégal. qui repose sur un bail illégal et une délibération kon moom moo def te lu waaye Babacar Ngom def dara maintenant nag. bu loolu jàllee. li ma jàpp mooy la loi sur le domaine dañ ko war a suppar ñi. daaw de. boo fekkee da nga dëkk Kolda wala nga dëkk Mbadakhoune war nga soo demee Bayla wala tay nga mën faa am suuf c'est-à-dire ab Sénégal waruñu ko wax ne ko yow fii rek nga sañ am benn jàpp naa ne ñi nga xam ne ñoo dëkk bi war nañu leen a jox ay ay jumtukaay yoo xam ne bu du nekkul de propriété ñu am ay bail yoo xam ne kenn dañ lay daggante ne li yaaku moom l'essentiel nag mën nañoo def condition yoo xam ne doo ko jaay kenn parce que danger bi nekk ci affaire euh, mbirum Babacar Ngom bi su fekkente ne Sénima day société anonyme. Hmm. Babacar Ngom mën naa xëy jaay jaay suuf mën na ko mën naa jaay société xam nga société moom moom suuf si. Hmm. société bi mu jaay ko ba remettre un australien. wala un israélien hmm. moom suuf loolu mooy danger moo tax président bi acte bi mu def c'est un acte grave. maintenant yi mën a ne daañu ko mën a déposer ci ay financement parce que gis nga bu fekkee suuf bu fekkee moomoo ko. doo ca mën a def alal jëm ci war a def pour mën caa liggéey. parce que boo fi sottee alal ju bari te yow même boo faatoo say doom duñ ko donn loolu loolu moo tax nit ñi di nit ñi di ko def kon encore naa ne war nañoo mën a fexe ba béykat yi ñoom ca ñu dëkk am ci suuf si loo xam ne dañ ko mën a jëriñoo ci wàllu di ko di ko tayle ci banque pour ñu mën am ay financement bu ko defee yaakaar naa développement agriculture du Sénégal gën a gaaw.